Bismillahirrahmanirrahim. ñu wax tuti ci li nga xam biñ fi nek señ bi muy señ amli Seck dal borom magal gi waxon na ak man ca fañi ligelo wax Nebo ji fi nga xam señ amli Amdy dal señ sëñ Mbàkke da ko fa doon liggéeyloo ay nek ku ñi wax euh, señ bobu sante jañ euh, dekk dekk fi ki Danki ak ki ñi wax Baye ki Jaw Baye Serigne Diaw fofa yit biñ fi nekké di liggéey di liggéey ba nga xamné liggéey bi sori na benn bisu aljuma ci lama serigne bi wolu ba ñew muy ci amli ma ñew mu ne ma day dama bëggoon ñu waxtaan tuuti ma ak si tok ak suuf sukk ni ma wara a diko déglu mu ne ma yow day ah sa borom daf la wo ci tol yalla bi ko ah man de serigne bi wax nga mako ay yoon fa touba ci daru qudus waye dama yaakarone ni ngay café di wax ak man rek non nga mako waxe mune mu ne ma waa la yalla dogal mané ko tay la lan mu ma tay la aljuma mané ko kon bis niki tay ci aljuma duguna ci ci katanu yalla waaw bobé itam ma ngi ci bi sama bay dama yebalon waaye nekkuma ko sax nan ko damay delu tàggu ko wala len dama ne ko rek engagé na bis niki tay ci aljuma ji mu jël arbi def ci yu bari waaw baax légui nak dama am tout tank yu nek ca daara ja ca gerle ta mag mu len jité nek gufa ta tamuna la ci ma ne ko waaw bés ni ki tey ci ta fasna yene li nga wax bi nga xamé ne nek nañ fa ba ba jeex ñu wara ñew taif di inaugurer forage su bi mune ma dañi and dem ba fofu ñu and ñew ba taif biñ démé ba ngon jot ma xamal ko ne ko damaa bëggoon su ma ci amee ndigal ma dem ca sama baay am lu ma waxtaan ak moom ndax it am na yu ma fa war a yu ma fa yore woon yu ma war a fay su ma demee fay ko mu ne ma ah kon toog ma yónneel la fa ne ko ah am na ci yooyu de bi man maa ko mën a lijjanti mu ma kon doxal ma ma daal di jëlaat foofu oto dem gisee sama baay tàggu ko wax ko li wax ak sëñ am li ah, baay comme ji na nga Dakar da bayang ci auto yi te yow ya fi nek manako ah waaw loolu di deug la waye dama defé ne bang fay ne wit ñako won lo ñaan lu la ci daara ji mu ma ah waaw wax nga deug de da na ma waaw kon baax na léegi ko kon ñaanal ma mu ñaanal ma ma dal di dik ah, bi may ñëw ah non mu mako won rek non la bi may ñew ah ku ni Baye Mor mi ak Amdi jak ak Moustapha Amdi amdi di ñu way wax amdi di ak amdi jak ñoo ñepp boba ñom ah, degeer nañ bu baax wax yalla ma sha allah de nga bima ñewé mu wax ma ni nga xamné non lay dox ak ñom sa yo xamé né yaa ci daara ji ma ndigal ci yow mo xam dama yónnee ndaw mo xam dama am kuma yebal mu ñew ci yow su dikke lima la wax nga deglu ko bu baax sa yo xamee ne ndigal jonne nga wara jog ngeen ànd liggéey yi ñoom wax leen ko len ñu dem jog defi nangam nga mayit ma def nonu sa yo sa yo xamee ne jóg naa war murid nañ leen dem ci tool yi bu dee dañuy dem ci bi ci fajar gi dama len di yee léeg-léeg sax ñun ah maam yow heure bi nga yeete teel na de waaye mané ne leen dañuy wara roti andi ci kër gi doo dem ci tool ya muy gante ñu def ko noonu moo ko waxee kenn ku ne ni ca la man gone yi doonoon ay tuut tànk nga xam ne mën guñoo am doole liggéey saa yoo xamee ne nii dem nañ ji première nji dama leen di ànd ak ñoom bant yi for leen bu fi benn bant des fu machine bi war a jaar balaa agsi ñu for ko ba mu set dajale ko def ko ab seebu su ma paree man man maa koy jànk seet fu ma ko teg pour bu machine bi liggéey du taaw bu ñu demee ba nga xam ne commencé nañ liggéey bi ah ñi top tracé yi ñi nga xam ne dëgër nañ ku ne ma la jiitalal li jiitalal ñaari tracé wala jiitalal ñatt mayit ma jital ñu and di bay di dem ba wacc heure wacc bi jot ñu wacc benn bisit mos na ci wax mom Cheikh Amdi Rijal dégg nga ne dama bëgg yeen ñëpp ngeen don don ben yeenante jam, ku ne li nga yeen sa bop nga yeen ko sa morom ndax yeen senam ndaje lolou ñi wax seydane ah du len gis mukk difa difa kand du du du seen du fa du fa du fa ñew mukk di jëm len du fa jaar sax bu len di sen day jaar dana uti fenen fu muy jaar waye da na xana ban seytaane mo len mën mana ba sen dara dox sen diggante muy bakkan bakkan daal bu fekkee nekkul ci yeen len mënu len a yàqal mané ko fas yalla loolu lepp ñi di doxal di doxal di doxal di doxal ah ba yalla dogal mom mu laqku bi demé ba laqku bi bisu ñaan gi tan ñew ma wo ñima jité won ñep ne len bu réré ba pare fi ci daara jé fété forage ba ñu waxtaan ma wax len fi ma nek ta damay défé ne fi ma nek fofu ngeen di nek mané len légui ñaan gi sorétul ta dama bëgg man fi mané man dama len koy wax yeen ñep ngeen déggu man day dama bëgg a jokkuwaat ci Baye Ridial salat xamal ko fi ma nekk ñoom ñii ñoom Baye moo rek gaay yépp ku ne ne ma ah yow kay fi nga ne lañ nekk loy wax baye bo waxaale ñu ma ko kon mu ngo kon légui dama bëgg ñu and dem ci Baye Ridial suñ démé xamal ko ne ko ñun dañuy sukkat jé jébbalu ci yow di beesal ndigal waaw commencé waat liggéey li ñuy wax li ñuy wax def leen ko loolu lañuy ñuy def loolu wax bu len ko def duñ ko jégué dé nga ba gaay yi d'accord ak man ñu dem ci sëñ Bayri Diall biñ ñëwé wax ka nga xamné mo fa togon di bëkk né bi ne ko sing, soxla sëñ bi ñun dañ ko soxla ni stuti mu wax ko sëñ bi mu né né len bismillah ñu dugg fekk ko ci ruqam bobu ci caisse gi fédi ni ñu ak ci tok nuyu ko siaré ne ko day man ko dem gaay yépp dama wax ak ñom am di ñaanal nañ ko ba ñaan gi jall na léegi dañoo ñëwaat sukku sukku ci sa kanam di jégglu fas waat jéblu beesalaat ndigal waaw ñi ñëpp nag seen kàddu jox nañ ma ko mayit foofu laa nekk waxtaan naa naa ceeg ñoom bañ na ma loolu moom fi nga ne lañ nekk léegi mu daan ne nangul nañ leen ko daan ñuy defal ñaan ñu jóg dem biñ ca doxee lu yàggu dara maanaam benn bis mu daal di wax waa dëkk bi ne leen dafa am tool yu ma bëgg néeg yi dem fa ku ci am sareet nga indi ko ñu roñ yëpp yóbbu ko fa muy fii ñuy ñëw tey Xaysara dégg nga bi nga xamee ne ñëw nañ bi nga xamee ne ñooñu waa dëkk bi ñëw nañ ñu jël euh, néeg yafa ni yëpp ak luñ fa doon samp rek andi ko fii ñetti daara yi moo fi newoon sama daara daara yi baskante daaray am di jaag yaakaar naa ne bu a juumut dégg nga biñ ñëwee def noonu biñ ñëwee itam sëñ bi dafa daan ñëw bët bu set am na sump gu newoon fii ci la daan toog ne fii mooy sump diggante waaw biñ ñëwee wax ak ñun lim ñu war a wax ak ñëpp ci ci ci ngan gi dégg nga ñu ne ko fas nañ yéenee def loolu nawet bu jot balaa nawet a jot ñu ruuj ba setal dégg nga maam def yëpp léegi nag bu boo xamee ne ji jot na ñu commencé ji bu ñu xëyee ku ne xam nga fi ngay fi ngay fi ngay fi ngay liggéey kenn ku ne ñetti daara la woon foofu daal jaar nañ feek moom tey daal ah wax dëgg yàlla toujours toujours toujours lu baax rek la ñu daan digal jaar leen ci yoon wi lu ngeen nekk na ci gone yi nekk wax dëgg yàlla man day boot naa leen ba wàcce leen waaye musuma cee xuloo kenn wala ma wala ma boole cee kenn sëñ bi na ko diw mii day nangam musuma koo def ba nii ma yeewee ko waaw ñoom ñi topp sama gannaaw it foofu lañ jaar ñoom ñëpp wax dëgg kenn laa ci du xool di sëgg ñoom it kenn du ma ci xool sëgg waaw parce que jiw ma jiw musuma leen a ji lenn loo xam ne lu dul noonu la waaw ba loolu it seere nañ ko waaw léegi nag ñu bëggoon a wax Baye Mor Seck moom it mu laal ci Baye Mor Seck di jàll. li ñu bëggoon léegi li ko fële. Hmm. comme hmm. waaw waaw. Hmm? waaw. daanaka li gars yi tënk kër matal rek xam nga yii moom. Hmm. bu ñu defee loo fàttaliku loo fi loo fi nekk yoon nga fàttaliku jaar jaar. Hmm, loolu day tax kuy bind kuy bind ëllëg.